yàgg naa booy yëmbal ak xeeru ngor yàgg mu basaab bu xonk wallaay wax nga dëgg booy yëmbal xeeru ngor bu am naana waaw bu naana kee def naana verte kese kon booy yëmbal mataar bu booy yëmbal sa mbër ngi xeeru ngor numéro un wala numéro deux laa ilaha illallah Bambey la mujj a bëree xeer à gauche Boy Yeumbeul à droite. maa ngi nuyu lay bëggee xaritu Lamine sama xarit ku nekk xaritu Lamine sama xarit nga. waaye Ibou Laye moo sponsorisé petit. lu tubaab wax borom oto pro wala pro oto. Lamine de wallaay Ibou Laye. il faut parler mais gis nga pro oto bële. Ibou la. Ibulaay borom borom oto ca Yoof. Ibulaay mbëttum noor la rek Babacar. déet waay bu ko def mbëttam noor. amul solo solo de. geeru bëy la. non mbëttam lolli la Lamine. dàqul weñ. déet bàyyi loolu d'accorduma. Ibulaay mbëttam dig lolli la. baax na ci ku xiif. waaw Babacar. la ko bëna nga ca biir mooy lan. loolu boo ko déggee ay mbir la. wax la. problème day am. jafe-jafe day am. ñëpp maandu ci wala ku cay wax xam la ngay wax parce que day am lu ne ca biir loo xam ne dee su ko wax lamin di nga jot ak sa soxna yéen ñaar rek kay xam ak yàlla loolu sëb lay doon la ko bënn nga ca biir am na jote yoo xam ne kon di ko lijjanti. Cheikh Fallou Luc Nicolaï yàlla na ko yàlla waaye Luc Nicolaï dina génn ak jàmm de. yàlla na yàlla génnee. kooku daa baax Luc mooy nuyu doom ja William Luc li nga nekk la yàlla na nga ci génn ak jàmm bilaay ku baax la Luc Nicolaï wallaay ku baax nga. keneen kanay bëre booy yëmbal à xeeru ngor à droite naa kuy suivre Leewtoo waaw wala li benn la lamb 100 pour na def ndànk de maam mu wóorul de maam mu day booy maam xamal fa ngay aw yàgg maar lu xew ah tiital nga maar lu xew non déedéet dama doon xool sama caméra. Ah, waaw c'est normal. Ndeysaan Abdoulaye Mbaye sama waa ji ca États-Unis borom états ngañ sow moom it mu ngi états nuyu naa ko du mën a ña eh daw na jël ko booy yëmbal jël na ko takk nañ la boo yëmbal lool du baax ci yow wala bëreekat la nag boo yëmbal daa mën a bëree de booy yëmbal daa mën a Xeeru Ngor na xool bu baax li muy def te bu booy yëmbal mi entraîné def na ko lu leer laa lay wax de. Gàmbi la nekkoon Gàmbi la dara nga fa waaye cey Gàmbi mi nuyu naa Gàmbi yee yëpp door na ko waaye liiru jaan dey bu la laalatee dana am problème de. Balla gay 2 laay waxal na wax ak moom. waaw dafa dafa na bàyyi Lamine mi muy dox di dóor. ba tey jaanam jooju di direeku rek. jaan joo xam ne day wër. day direeku rek day direeku te amul i bëj. waaw da nga koy téye. wuli na koo dóor moom a ah, defe naa ko de. mu naan mënatuma bëre. ah waaye liiru. liiru xam nga lan la def. lu mu def. Gambie dafa def dafa dem ba combat am kese des. liiru réer ñu ñun ñëpp ci stade bi ñu koy wër billaahi pour mu war a bëri waaw xanaa mu ne nañ ko jox reliquat ba pare xanaa nga wër ko loqati ko mu nañ ko jox reliquat ba pare eh waay ndaw Samba loolu fu mu mas a ngay bëre ba pare kay door a laaj reliquat kon nañu nañ Gambien yëpp ñoom Jibal Touré ñoom Paate Gambia eh Malick Ngom a ngi arbitre arbitre mbaa xam nga ne c'est le sauveur. waaw daw na jël ko. waaye génne na ko. yàgg maar. combat la de. loo wax. non buy faral di am lii muy def nii booy yëmbal da koy daan léegi. ndax sa amul garde ci suuf. te mbër day samp ay tànkam. wallaay wax nga dëgg. waaye borom Liberté 4 xam na bëre. mais Saliou xulle nuyu naa la borom Zik FM. borom le 28 eh, borom le ñoo ngi koy ziar moom Saliou. Saliou Khoule animateur bu mag boobu. suñu xarit ba. suñu doomu ndey. ak a baax te gore. kenn du moom Saliou Khoule. ak wuli suñu mbër moom. wuli waay ah Lamine la ñu wax doyul waaram. wuli suñu mbër. doyul waaram. wuli la faral. jox na ma dàll yu rafet moom wuli. ah keroog jox na la blouson bu rafet. as VIP sob la ko jëlee. keroog jox na la blouson tamit. wu rafet waay Marseille. waaw mi ngi ko. kay baax na ci man. faral ko. Balla Gaye waxal liiru muy def dara. liiru bëtum dara. liiru e liiru jaan borom géejawaay monument bi waaye waa camp pénal nuyu nañ leen inspecteur nduur inspecteur nduur moo jiite camp pénal ñuy nuyu détenu yëpp di leen ñaanal jàmm waaye Lamine Kera la xew foofu inspecteur Thiaw inspecteur Thiaw laa bëgg a wax dama juum ne Ndour mais caw la ak seen kilifa la colonel Jean Bertrand Bocandé waaw nuyu nañ leen nuyu détenu yi di leen ñaanal yàlla fiñ nekk yàlla nañ fa génn ak jàmm. ak kilifa bu mag yi ministre de la justice. waaw du man a ñàkk. ku mag a mag ku ministre de la justice ñu koy nuyu. ku mag a mag di Macky Sall. de la république de su ko mën a ñàkk nuyu moo yor réew mi. waaw ñu ngi eh daw na jël ko boo yëmbal jël na ko xeeru ngor wàcc jël na ko mu wàcc caxabal ta lay daan daan na ko daan na ko de lu xew ah am na coow lu xew ku daan. mbaa tuuruñu ko. tuur daa mel ni tuur am na ca de. daa mel ni boo yëmbal mbaa ñàkkoo. boo yëmbal mbaa ñàkkoo. toppal ma loolu yàgg mar génn leen géew bi génn leen géew bi bërewaat ah way wax na dëgg wax na dëgg Lamine ñaax day am ci bëree bu leerul ñu bërewaat toppal ma loolu yàgg maar police yi dañoo geetaru wax nañ dëgg. comme am nañoo xam ne yàqu xew rek la ñu nekkee nga geetaru Malick Ngoma ngoonguy toog bëre waat la Matar Diouf wax waa je suis d'accord Matar soufflé na Matar soufflé na waat na ñu ngay bëre Ebou Laye borom oto poro nuyu naa la waa ndeysaan oto poro jooju ci oto yi maak Lamine ak yàgg maar daw na jël ko mu dóor ko dóor na ko mbaa ko dóor mu daanu laa ilaha illallah botti na ko mu bañ daa mën bëre boo yëmbal waaye xale bi njool la dina ko daan daan na ko laa ilaha illallah boo yëmbal daan na xeeru ngor jëli bu rëy wax naa la ko daa mën a bëree yàgg maar lu ma lay wax ci làmb de ci bàyyi xel Lamine boo yëmbal bëre kan la mën a bëre jël na coup bu metti mu ngay kaas daa koorul xeeru daa koorul nee ah, li mujj am de mooy daanu nga li mujj am moom mooy daanu nga mais yow noo analysé combat li ma analysé daal arbitre loolu dinaa ci ñëw ak yow